actualité bi nga entraîneur bu Bolivie Pablo Escobar néna nak Sénégal bu nek na équipe boo xam ne boo leen xojee maanaam boo pression rek ñom seen football day jaxasoo également li nga xam match Sénégal Bolivie également à huis clos le gars lolu loolu dinañ ci indi ay leeral mais d'abord joyeux anniversaire à l'un des plus grands clubs du Sénégal le Jaraaf de Dakar qui fête ses 53 ans bu ñu Jaraaf de Dakar xel dem ci nga xamné également moy un certain Cheikh que le président du Jaraaf de Dakar mais également bari nañ ño xamné ne jaar nañ fa mais également une pensée pieuse pour

Lola, la ñi sportive, sportif dañuy déglu musique am te musique bo xamné siwna té chaque fois ngeen mais aussi li nga coupe d'Europe 2024 la Russie manquera l'euro ndax wa UEFA une guerre ba xamné nous Ukraine ñu di disqualifier donc ñi di Russie duñ ci trois ans de prison dont deux avec sursis lañu tek ki nga xam moy mooy Laporte ak Atrad ñom nak lañ leen diñ moy que ne li nga xam mo moo ci wàllum sponsoring par rapport 15 de France bi dañ ci am ay xaaj ak seen dafa am lo xam dañ jaaru ci yoon motax mom 1 an ferme la wara teud ki di xeyra am rawi nek joueuse du Paris Saint-Germain nga xam nak dañ ko agressé won ben moment sax dafa génnoon ci groupe Paris Saint-Germain bi Paris Saint-Germain réintégré nako bokkat na ci groupe bi mom nga xam nak Aminata Diallo lañu japp jàpp ne finalement mo defoon li ni mel mais ba légui ñu ngi def seen enquête diko wëyel les meilleurs buteurs de différents championnats waxoon à Londres du côté de la Premier League Neymar du côté du Paris Saint-Germain de la Ligue 1 qui dit Lewandowski du côté de la Liga euh, qui dit Arnautovic du côté de la Serie A et Becker euh, du côté de la Bundesliga Bundesliga les ñuy qui ki nga xam de moom de gis hein, Gravenberg ah di Gravenberch Gravenberch actuellement li nga xam ne temps de jeu du côté euh, du club bavarois neexu donc mais quand même dina jéem a rabo ba même bu fekkee il joue il essaie de mettre son niveau tel ko ci ben kawe bi mais actuellement qui qui di Gravenberch il n'est pas satisfait Mitchell Ramgenko, ancien entraîneur hein, donc euh, de l'Olympique de Marseille actuellement il est Olympiakos de ñoom Pape Abou Cissé va être leur nouveau entraîneur Mitchell et du côté également hein, donc Gaël de des Blues de Chelsea Christophe Rund ngeen directeur sportif du Salzbourg euh, mais finalement Salzbourg n'est pas ko bàyyi mu actuellement seen gët ñu ko euh, directeur sportif du Bayer Leverkusen du côté de Nice Lucien Favre vers la sur la sellette plutôt moom daal mi ngi jëgé genn ñi nga xamné nak moy média français ñeen nañ Mauricio Pochettino mom il est intéressé par le projet niçois mi ngi waxtaan ak ñom Pochettino qui pourrait revenir du côté de la Ligue 1 ki ngeen gis ni di Vargas Vargas N'ak néna na dafa am lo xam ne yëm ci Lionel Messi moy néna ñu dañoo jouer benn match mu ne ko dama am donc benn projet boo non, ne bëgg a ay ndaw di collecter ay maillot jox ma sa maillot néna mom bu match bi jeexee fàtte N'ako, mais Lionel Messi moko fekk ci vestiaire yi jox maillot jox maillot ak ñom Iniesta nee marqué le gars yi également l'image bien ngeen di aujourd'hui moi Regragui le nouvel le nouveau sélectionneur hein, donc des Lions de l'Atlas du Maroc ak akim ak ziek nga xam Hakim donc qui est de retour Maroc mi nga xam ne moom donc coupe du monde bi Sénégal Bolivie donc c'est le samedi 24 septembre à 19h les dons bu stade euh, fa le stade de la Source à Orléans lañ mais également l'autre nouvelle moi gars yi ce sera à guichet fermé moi que ne match bi bii du côté de Orléans club bi moko xamalé stade la bo xamné maximum bi 7500 places donc actuellement c'est huis clos donc c'est plutôt à guichet fermé match Iran bi on a ko information pour l'instant il lañ gu bo amee yeneen lèr nañ ko wax moy que na bo ce sera donc du côté donc de l'Autriche mais a huis clos lay don muy Sénégal Iran Qui est également di Pablo Escobar le sélectionneur de la Bolivie mom néna Sénégal équipe la bo xamné donc am une puissance hein am euh, ils sont athlétiques équipe la boo xam dañuy jouer ci transition rapide mais Sénégal n'est na équipe bo xamné point faible moy bo len leen pression manam bo yoré bal bi dotu ñu jouer sen jeu day jaxaso loolu la wax hein mu le Sénégal dafa nek équipe bo xamné bo yoré bal bi leur jeu est dispersé sen football day jaxaso loolu nak waxuma Pablo Escobar moko wax le sélectionneur de la Bolivie nee na aujourd'hui match bi ñom dañ ko jël à cœur parce que match la bo xamné ñom buñ ko gagné day tax ñu xamné ñom peuvent rivaliser avec les grands pays yi nga xamné dañuy dem jouer coupe du monde donc aujourd'hui la Bolivie bu ñëwul pour nekk nek ben sparring partenaire bo xamné Sénégal day ñëw rek door jéggi ñëpp japp né non match bu yomb lay doon attention à la Bolivie attention à l'Iran gars dina ci def ben affaire bo xamné après ñu ko gis mais la Bolivie ñom ils sont prêts si c'est maintenant il sait que aujourd'hui l'équipe bolivienne respecté nañ leen mais liñ wax leen ñom ñeneen bu ñu pour ñu mëna gagner Sénégal dañuy ñëw jouer la possession est-ce que aujourd'hui Aliou c'est dina nangu possession bo parce que en Afrique Sénégal parce que équipe bi day daje Sénégal mo yor possession bi mais coupe du monde Sénégal day équipe la majeure partie de la position de balle donc on verra comment Ali Cissé et Tactico et l'équipe nationale du Sénégal vont agir face à cette équipe bolivienne bi nga xamné ñom ambition et ils l'ont dit Pablo Escobar l'a dit en tout cas néna allez où El Tactico cette équipe bu ñu ko pression du jouer des garçons. maintenant à l'issue on le connaît on verra comment ils vont réagir tout à l'heure gars la seconde vidéo de diego nag mais pour des raisons professionnelles des ñëw pour défendre le point dans la tanière de l'équipe nationale du Sénégal gars Vous êtes leen vous like abonné ban gis am on avance ensemble jaa ngeen